soo bëggee di seetaan suñu ay vidéo demal youtube nga tafe daayira Wakana Haqqan facebook nga abonné nag te bul fàtte ba si kolte notification bi dina waral vidéo bu ñu nga mën ko am am na solo lool ndax li ko ci te mooy nañu ko teewee nii tey ngir waajal màggal 2021 ginnaaw bi sëñ bi joxe ndigal ngir ñu waajal ko ñuy ñaan suñu borom defal ñu ci ndam ba li tax ñu daje fi te mooy lu yéwénal jumaa ji ci lépp loo xam ne laaj ne ko ci worma ci setal ak sécurité ba ba suñu am ko ñu ko bëggee li ñu déggoo itam mooy waa Muxaddamatul Xidma si li nga nekk moo dëkkee Louga ak waa Istiqaama ak Eaux et Forêts Xidmatul ak Lamp Fall ñoom ñoom bokk nekkandoo féetug ndeyjoor boole kooku dem di surwaaye waale liggéey bi ilhaamu xabir moom it lim yoroon lay wéy di ba tey lu mel ne tubaab yi da nga xam ne def biir marg ba tey itam wàllu teg itam ñoom lañu jënk dem di ko taxawu loolu ñu ko ñaari heure ci bis bi muy diggante 9 heures bu njëkk bi ak 18 bu dee lu mel ne barab bi te sàppe yi di fa jaar ba sol xadim bi xidmatu rawdu ñoom ñoo nekk coordinateur bi ànd ko waxatu xabaar ak waa xidmatu masalik bu dee biir jumaa ji kim ni baaxoo defe mu xadamatu xidma ah, biir ma ba bu xadamatu xidma bu Dakar moom itam ci ñu la bokk fu di nekk biir sàppe yi di nekk wakkaana xaqan ñoom ñoo yor wetu penku gi ak wetu càmmoñ gi ci liñ liñ baaxoon mi sàmm barab bi ci képp ko dafa yelwaan baa dugg baa mu fay jaay baa mu fay géew baa mu def loo barab bu dee lu mel ne wet gi bu dee lu mel ne bu dee lu mel ne biir jumaa ji mu xarmat xidma ñoom ñooy wéy resté ci biir ngir taxaw lépp loo xam ne ñu doon bëri ko baax a defee moom it ci bépp loo xam ne pët baax si ci biir moo xam kuy jaay wala ku wala koo xam ne saamonteewoo ak xam ne moo yàlla ci barab bi ñii ñëpp nag kenn ku ne ci ñoom yàqalu ko dara la baaxoo def am naa lam su xam yoon lépp loo xam ne teg ci la aju waaye teew tam dañu mën ci sow bi comme comme ni baaxoo ne am suñu liggéey kon dara wàññi ko daa yokk waaye day wàññi ko bu bu baax a baax kon xabaatu baaxoo yokk mooy ndox mbirum ndox ñoom it nañu tam ñëpp lañ bëgg jàpp ji ba sax dañuy weesu di ñëw rek di jox ay nit ñi ndox yooyu léegi ni ñëw léegi ma wut ay bërigo sax su ma nee am képp bunt yi képp bëgg ndox képp gi dugg sàpp yi rek foo bunt boo fekk fa ndox la jël sa sañ am a naan xam ne ne jamono laaj loolu la ñu soññ mbooleem mbokk jàll yëpp rawatina daara yi nga xam ne yaakaar naa bi soxna si bi rek fi ne la ci indi ngeen ay junni junni ndox li mu jaf jot a xam ne fi mu soosa a waañ kon ñu leen soññ baax wax dina soññ tam ñëpp maas àndandoo nekk benn ci biir bi bi nga xam ne moom lañ sant yu def daayira bu ne am ñett sàmmante ak li nga xam moom la ñu war a taxawal bu def naa bu ko rek liggéey bi dem mën naa jag jaar yoon loolu biir ci mbiru wuti directeur yi moom mi ngi fi naka jekk danaa dox ñoom ñu dox jege leen lool waxtu woon tam ñi ngi ba lépp loo xam ne lu ngeen jaaxle mën caa del ñoom itam maktan bi nga xam ne moom la day waxal waxi ma moom ñu complice day moom moom liggéey waxtu ñu ngi ci bi nga xam dafa yaatu nag dafa xam ne xidma day taxaw fii ci jumaa ji dafa dem taxaw Sëñ Tuubaa gën a yëkkati Sëñ Tuubaa mooy gën a kii yi nga xam ne wi itam nag ñu ngi sàkku ñëpp ñu fonk ko ren ñëpp ñu àndandoo ko itam maas bu gën koo waajal bàyyi na wax xel lañu la yoon nag daal suur bi ci ceeb ren ñu def ko loolu lañ bëgg ñi fi nekk itam nag bëgg nañ itam nag ñu dund màggal bu baax a baax am fu ju doy ak branche doy ak la mu doy loolu nag kenn ku nekk xool na ko ci wàllam mu def ko ci kon nag jëf yaa ngi si sa benn di ko def wax bu déwénee da koy def da ko doon def dana dana ñamal nag suñ ko bàyyi xel baax baax nga xam ne amul lépp bis bi ñu jëm muy bis safar mooy suñu lépp mooy suñu teraanga mooy kon nag ñu ngi ñaan yàlla ñoo ngi teew ak jàmm lépp loo xam ne yéene bi def lépp lu kawe suñu njort ñëpp di soññ ñëpp su ngeen defee ngeen bu baax baax ma dana indi ay ci yéen ni ko ñoo xam ne commission commission culturelle bi waajal nañ leen ngir lépp loo xam ne wi la bërëb lépp loo xam ne bu leen jumaa moom moo fi war a kon ñaar dana ci daje kon ñun ñun ñi taxawu ñi nga xam ñoo fi ñëw ci ëmpale wala boog ak kir jàppale bañ fàtt waaye lu mën na xew ñaar ak am moom ki xam ak ki xamul léegi nag ñun ñu fi nekk su dee ak xamul dañuy jiim ak yaru rek dina suñ jub ba man ci wanteeg moom suñ daan digle mooy nañ jàngal ki yaram su su ñaari bu ñu daje mu taamu yaram kon nag nañ xel ci ñun li ñu war ko mooy yaram mo sëkk bu teg ak akum dal nga xam ne ñëpp fii ñëw ñëpp ñëpp a fii ñëw ñëpp nit ñi ñëpp fii ñëw tunjuk. Kau ni bahasa hutang sebab. Kena kena nak tolak dah sikit. Penyu dia dulu.